إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومهى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فأيها المسلمون ما زلنا مع الصابرين بكي ñu ngi santal la julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam di continuer ci mawdu boobu ñu commencé woon waxtaan ci sabr muñ def nañ ci ñaari xutba ci la ñuy wéy insha allahu tabaraka wa taala الصبر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد لا إيمان لمن لا صبر له ولا جسد لمن لا رأس له علي بن أبي طالب رضي الله عنه nee na bu ñuy comparé muñ ak gëm yàlla dañ koy méngale bopp ak yaram as-sabru min al-imaani bi manzilati ar-ra's min al-jasad maanaam dañ koy méngale comme ni bopp mel ci yaram muñ noonu la nekk ci gëm yàlla mu ne ñu laa imaana li la man la sabra lahu ku amul muñ kooku mënul gëm yàlla mënul nekk vrai jullit koo xam du muñ dara dara ci façon ñett mu ñuy waxoon nen kooku gëmul yàlla wala jasada li man la rasa lahu yaram bu amul bopp nit ki boo daggee bopp bi sànni yaram bi lu muy jëriñ ne ne kii xam ne gëm na yàlla waaye muñut noonu la mel kon c'est-à-dire muñ mënul ñàkk ci jullit yàlla subhanahu wa ta'ala tuddal nañu ñu bëri ci min as-saabiriina fi al-qur'aan al-karim ak li mu leen dencal ci ay pay qaala ta'ala wa ayyuba id naada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamu rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب هذا هو سيد الصابرين yonent yàlla Ayub yàlla daf ko nattu nattu bu méttee méttee méttee méttee ibtalaahu llahu fi maalihi wa fi awlaadihi wa fi jasadihi fa sabar yàlla nattu ko ci alalam iblis allain dafa na yàlla boo gisee kii di la jaam ayub parce que dafa am alal mu nekk yonent nekk milliardaire moo tax mu lay jaamu alal bi nga ko joxoon mi nga ko jox boo ko jëloon tey mu weddi la yàlla ne qad sallattuka ala maalihi may naa defal lu la ne ci alalam iblis ñëw taal alal ayuba ba mu jeex ayuba continué di jaamu yàlla mu ñëw ne ko ah sa alal ji yàqu na de mu ne ki ma ko joxoon moo ko jël moo gën a yelloo man iblis ne yàlla boo gisee tey mu lay jaamu dafa am ay jur am na ay nag ak bëy ak xar ak gëléem moo tax yàlla ne ko qad sallattuka alayha may naa la ndigal demal defal loola neex mu dem alal jur yëpp defatul dara mu ñëw ci ay yub ayuba nekk ki ma ko joxoon moo ko jëlaat moo ko gën a yelloo iblis ne ko yàlla boo gisee mu lay jaam parce que dafa am ay doom yàlla ne may naa la ndigal defal lu la neex mu dem rey doom yi yëpp ñoom ñu feebar ñu faatu lam yazdad ayubu illa imanan wa istislaman wa ibada loolu yokku ko lu dul jébbalul yàlla gëm yàlla jaamu ko subhanahu wa taala iblis ba tey ne ko boo gisee mu lay jaam dafa feebaru yàlla ne ko may naa la ndigal mu dem of ci bakkenu ayuba ayuba feebar feebar na samaniyata achara aaman fukki at ak juróom-ñett mu ngi tëdd musul onk xam na ne ndogal yàlla la léegi nag moom la yàlla nettali ayuba soxnam si ne ko doo ñaan yàlla mu yàlla wella wéral la mu ne ko ñaata at laa toog te feebaruma mu ne ko sabiina aaman juróom-ñaari fukki at mu ne am naa keesa rus naa yàlla ma koy ñaan mu may jëlee ci feebar te te tedduma juróom-ñaari fukki at moo tax ci laaxe bi sax yàlla yent yàlla daawud ayub nu mu ñaanee yàlla day dëggal loolu ñu wax wa ayuba id naada rabbahu mu ne fàttalikul ayuba bu mu ooyee boromam lan la wax rabbi anni massaniya dur man de sonn naa nawul teggil ma kii bi de def na yàlla sonn naa de massaniya dal na ma adduru feebar te ñu ne lan moo taxaw lan moo waral loolu dafa feebar ba lammeñ bi bugg am problème mu xam ne bu lammeñ bi amee problème dootul ma tudd yàlla mu ragal anni massaniya dur lor dal na ma te wa anta arhamu rahimin yaay borom yërmande yàlla wuy ko la fastajabna lahu ci saase alfaaw liltaaqibi wa tartibi ci saase laa ko uyu fa kashafna ci saase laa hunju fa kashafna ci laa dindi ma bihi min dur lépp lu nekkoon ci moom ci ay feebar ci biir ci biti fa kashafna ma bihi min dur est-ce que fa la yam wa aataynaahu ahlahu wa mithlahum maahum doomam yi deew lépp yàlla dékkilaatil leen yàlla dundal leen ñu jóg mu mayaat leen mu joraat yeneen doom yi tol noonu wa aataynaahu ahlahu ma joxaat ko njabootam wa mithlahum maahu ak ñi tol ni ñooñu yàlla ne lu tax yàlla ne lu tax ma def ko rahmatan min indina ñaar moo tax yërmande bi ma am man yàlla amal ko ayuba rahmatan min indina ñaareel xikma bi wa zikra lil abidin ak fàttilu waar ñii di jaamu yàlla c'est-à-dire jaamukatu yàlla yi ñooy gën a am ay nattu yàlla lii dama ko def pour ñu bañ a fàtte bu ñu bañ a xalaate man yàlla dama leen fàtte wala dama leen xeeb déedéet wa zikra lil abidin yonent yàlla fukki at ak juróom-ñett te du feebar ba ne ba ñu génnee ko ci dëkk ba ba ñu ne kii saa daam lu mu def yàlla loo xam ne yàlla mënu koo fàtte moo tax yàlla teg ko feebar ji hada fi suratil anbiya bu ñu demee suratu saad yàlla wax ci ayuba wadkur abdana ayub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ci suratu saad yàlla ne na nga fàttaliku yow yonente yàlla Muhammad lool nañu la tooñ nañu la tuumal nañu la mais fàttaliku sama jaam bi tudd Ayub abdana Ayub kañ id nada rabba bu mu wooyee boromam di ko ñaan anni massaniya shaytaanu bi nusbin wa adab seytaane moo ma indil jafe-jafe ji نصب وعذاب شيطان ما ورا لي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثله معهم رحمة منا وفي سورة الأنبياء قال وآتيناه رحمة من عندنا في من ووهبنا له أهله ومثلهم معه rahmatan minna wa zikra li ulil albab pour nit ki bañ a xalaat ne yàlla da ko amaat yeneen doom yàlla dafa dekkil doom yi fale ne wa ataynaahu fii wa habna lahu ma joxaat ko doomam yi ak yeneen doom yàlla lu tax ma def lii rahmatan minna yërmande bàyyi ko ci man la wa dikra li li ulil albab maanaam ñi am xel ñoom laay waar ñoom laay jox leçon nangu dogal yàlla subhanahu wa taala ànd ci yàlla fay la lii imaamu shafii radiallahu anhu رأى رجلا يطوف بالبيت الحرام ويدعو الله قائلا اللهم ارض عني imaamu Shafii dafa gis benn waay di wër Kaaba gi di ñaan yàlla yàlla nag ma gërëm dana kontaan ci ma qaala lahu imaamu Shafii radiyallahu anhu ya axa ya axi law radita an illahi la radiya allahu ank boo gërëmoon yàlla yàlla gërëm la boo kontaanoon ci yàlla yàlla kontaan ci yow waa ji ne ko yaa imaam Shafii kayfa arda anillah nan laay kontaanee ci yàlla nan laay gërëmee yàlla qaala lahu al-imaamu Shafii yawma tusarru bin-niqma sururaka bin-ni'ma faqad radita anillah bés boo demee yàlla boo la tegee nattu nga kontaan mel ni xéewal la la defal kon gërëm nga yàlla ci boobaa na la yàlla gërëm lii nag ay place la manzila la dimension la. boo fa jegewul da ngay xalaat li mënul nekk maanaam bu yàlla dogalee nga xam ne yàlla gën moo la ëpp xam-xam moo la ëpp xikma moo am am ëpp yërmande ci sa bopp sax kon li mu dogal xamal ne lu baax la mu ne boo fa eggee rek jàppal ne yàlla gërëm na ndax gërëm nga yàlla subhanahu wa taala ayuha al ixwa asabru yàlla da koy tànn ñi koy defal nag ginnaaw boo defee effort du ñëpp maa ñaar du ñëpp maa koy am de ci ko am ñu tuuti la mbokk yi bokk na ci sabru muñ ci dogal yàlla ci wàllu am-am li la yàlla jox rek nga doylu ci bañ a xool li li ko li ko dépassé maanaam nga kër këri pour am soo amul nang nangul ne lii mu gën ci yow. قال سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطوه ثم سألوه فأعطوه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر روى هذا الحديث الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما سعيد بن الخدري ne dafa am ay nit ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokkoon waa Ansaar ñu dëkkoon Madina ñu laaj ko ndimbal yonent bi jox leen ñëw laajaat parce que moom du gàntu loo ko loo ko daal di lay jox soo ko laajee amul demal demal jël ci boutique ba nga bind foofu Muhammad rasulullah après man maay fay ñu laaj ko ba mu jeexal li mu yore mu ne leen bu mu joxee ba deseetul dara mu ne leen maa yakun indi min xayri lépp lu ma am ci alal duma ko denc dama leen ko nëbb naa leen ko jox waaye ne naa doon ñetti règle moo gën ci li àddina mu leen bi si jiitu man yasta'ifa yu'iffuhu llah yu'iffahu llah képp ku doy doylu fexe même boo boo tàmmee ñaan saalit nga jéem tey daal dinaa am jom incha allah duma laaj yenent bi ne yàlla dana ci fekk nga am jikko jooju wa man yastaghni yughnihi llah képp ku doylu yàlla oomal sa xol bu la mooy cent mille francs par jour mu doy la wa man yatasabbar yusabbirhu llah kuy jéem a muñ yàlla may la jikko muñ mu ne leen wa ma utiya ahadun ataan xayran wa awsaa min as-sabr amul lu lay mal yàlla may fii ci àddina maye bu gën bu gën a yaatu lu mel ni mu may la jikko muñ mbokk yi ñàkk muñ ci am-am moo ñuy dugal ci giraawaale moo ñuy dugal ci guuta moo ñu dugal ci wax lu amul ci naxaate ñàkk a doylu ci wërsëg bi la yàlla jox walidalik qaala allahu tabaraka wa taala an qaarun fa xaraja ala qawmihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين qaaruun yàlla may na ko alal joo xam ne kenn xamul lu mu toll alal ji mu am fu muy denc alal ji caabi yi ñu koy tëjee te caabi der law nekkul lu diis fukki góor mënuñu koo yëpp mënuñu koo yóbbu wax man alal ji de caabi fi ñuy denc alal ji la tanuucu bil usba fukki nit mënuñu koo yëkkati mu génn moom ak gàngonaaram moom qaaruun lu mot ñetti téeméeri jaam ku nekk sol lépp yëpp lépp li mu sol nekk soie ak or gi nga xam ne nag gars yi bëgg adduna buñ ko gisee jullit ñi ñu ne ah yaa lay talana aka neexoon yu am li Qaaruuna am ah kii de innahu la zu hazin azim yàlla may na ko de comme niñ koy waxee tey diw borom barke la mbokk jullit yi xalaat leen ngeen déglu bu baax ngeen def benn sondage buñ ne diw borom barke la xoolal kooku nan la mel buñ fii Sénégal mooy diw borom barke dafa am alal wala am pouvoir wala am mbooloo wala siiw kooku mooy borom barke borom barke imam wala kii di jaamel la julli fajar ci jàkka ji ak julli waxtu yëpp ci jàkka ji jàng alquran du sàcc du wurus du tooñ ne ko borom barke mus dëgg guma ko de néew ma ak amul buñ ne borom barke rek ci wàllu aduna la gaa yi xalaat bi fooy la jóge innahu lahu hadin azim wa qala alladina utul ilm ñi yàlla may xam-xam lan la ñu wax du noonu de parce que ñeel na leen de tiwaaba ji nekk ci yàlla moo gën ñeel ki gëm yàlla jëf ju baax kon nag fii mooy hada huwa qimatu al ilm wa qimatu al ulama an yaqulu linnaasi al haq أن يزاحدوا الناس في الدنيا وأن يكونوا أولا في أول lii mooy valeur xam-xam ak borom xam-xam dangay waxal nit ñi li leen di yóbbu àllaaxira yóbbu la ci yóbbu leen ci yàlla wa qaala alladina utul ilma waylakum toskare ñeer na leen sawabullahi xayr tiyaaba yàlla ji moo gën waaye kan moo koy jëriñoo liman amana wa amila saaliha ki gëm yàlla jëf-jëf ju baax te lii nag tànneefu la wala yulaqaaha illa sabirun ñi muñ rek ñoo koy am ñi muñ rek ñoo koy am yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam law kaana libni adama waadiyaani min aldahab la tamanna lahuma thalitha wala yamla'u fama bi adama illa turab wa yatubu allahu ala man taab yonent bi ne yàlla bu may doomu adama ñaari xur oki or wurus ay junni junni ton wurus dina mébét amaat beneen lan mooy feesal gémmiñ doomu aadama suuf mooy buñ ko suulee rek maanaam du suuf du doylu waaye nag ku tuub yàlla dina ko nangul tuub mbokki muñ bokk na ci li yàlla séddale nga nangu bañ a dugg ci ci leneen udkurullaha yadkurkum washkuruhu yazidukum واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وحبيب المتقين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء وامام المرسلين وسيد المتقين ايها الاخوه ام نتلا نيك ام تم نتلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون yàlla ne man maa leen di nattu boo feebaree nattu la boo wéree nattu la boo amee nattu la boo ñàkkee nattu la lépp yàlla da lay xool te fi ma fi ma ngeen di dellu mbokk yi bokk na ci li lay dimbali pour nga muñ da ngay xam ne lépp loo am nattu la examen la yàlla da lay seetlu fa amma al insanu ida ma btalahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida ma btalahu fa qadara alayhi rizqa ay fa dayaqa alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana kalla bal la tukrimuna alyatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما هذا هو الهوان هو الذل yàlla ne doomu aadam bu ko yàlla nattoo ibtila teral ko jox ko ay xéewal ne yàlla de teral na ma yàlla xéewal na ma waaye bu ko yàlla nattoo nag mu xatal wërsëgam ne yàlla def maa toroxal mel ni ku am alal rek tedd na ci yàlla ku amul dafa torox yàlla ne du noonu de kàlla du na ngeen ko foogee de torox mooy lan torox tànge ak gàcce la tukrimuna yatim ba di dimbali orphelin jirim loolu ci gàcce la ci toroxtaange la bokk mandargam la bañ a dimbali néew doole bu yàlla mayee sa loxo jot sa ginnaaw loolu gàcce la toroxtaange la lekk alal jirim loolu gàcce la toroxtaange la lekk alal bu xaram lii mooy toroxtaange du ñàkk am alal wa lidalik سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى عرس بلقيس في قصره حمد الله يننتي الله سليمان بمجل لالو بلقيس عندك تبالم أبان بلقيس دنيو لالوا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم defal lii daal lii bokk na ci ngëneel yàlla li ma yàlla defal du lépp de lenn ci ngëneel yi ma defal lu tax yàlla defal ma ko li yabluwani li yaxtabirani li yamtaxinani pour yàlla nattuma pour yàlla xool ma fan laa toll ndax damay fàtte yàlla fàttali ko sama bopp lii man la sama doole la sama xam-xam la damaa sonn damaa jàng est-ce que loolu la déedéet mais yàlla def ma natt pour xool a ashkur ndax dinaa sant xéewal bi am akfura damay dañuy di ko xéewal kon lii boo ko xamee di nga mën a sant yàlla mu ne ku sant nag sa bopp nga ko defal waaye boo weddee xéewal du wàññi yàlla dara li anna allaha ganiyun ko oomal la karimun ko tedd la soxlawul dara ci li ñu koy defal mbokk yi muñ bokk na ci muñ ci la yàlla sedd ci wërsëg bañ a jaay sa ngor bañ a jaay sa diina ngir poñeti aduna problème yi jànkonteel te yëpp ci addina bi yëpp pour addina kese la ima am alal wala am ndombol tànk kese kese kese mooy li suñu problème yëpp jarale rey nit jarale génn ci diina pour am te du def moo tax woykat yi dafa ne la taxdaanna li maxluqin ala tamain fa inna dalika naqsun minka fi ddini falan yaqdira alabdu an yutika xardalatan illa bi idni alladi sawaaka min tini لا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين istarziqi llaha mimma fi khazainihi fa inna rizqaka bayna alkafi wannuni istagni billahi an dunya almuluki kama stagna almuluku bidunyahum an iddini ne la taxda anna li maxluqin bul wàccee sa valeur devant benn doomu aadama pour li mu am ci poñeti adduna la tax dana li maxluqin ala tamay pour am li mu am alal ji wala am posto ndombol tànk bu ya bu jaay sa der la tax dana li maxluqin ala tamay fa inna dalika naqsum minka fi diini loolu dingaa wàññi sa diina bés boo bés boo nooyalee sa wax ngir kii def am alal amaan na mu jox ma ci dara wala mu jox ma ndombol tànk sa diina am na li ci dem naqsu minka fi diini lan yaqdira al abdu an yutika xardatan illa bi idni alladi sawwaka min tiini nit ki mun la jox lu mat dix francs sax lu dul yàlla jox ko ndigal mu defal la ko doo am mu nañu laa tusaaxib ganiyan tastaizu bihi wa kun afifan wa azim xurmata diini bul ànd ak borom alal pour am li mu yore na ngeen ànd ngir yàlla mais sa hadaf sa jubluwaay sa objectif mooy pour mu jox la dara ah loolu de mooy oyofal diina ñàkkal diina kon na nga respecté diina ji mu ne ko nag sa wërsëg mu ngi ci yàlla ñaan ko mu jox la ko bàyyi na kaa kun fayakun rek mu jaaxalee woo bi ne istagni billahi an dunyal muluk jëlal yàlla def ko priorité nga wulis buur adduna yi borom alal yi borom ndombo tànk yi dafa yàlla sa priorité ni borom alal ñi gën a bëri ak buur yi defee adduna seen priorité istagni billah na nga doylu yàlla nga bàyyi ñii ñoo xam ne adduna yëpp moo leen yitteel ñi ni doyloo adna wali si yàlla subhanahu wa taala nga nekk si jàmm ijal bi rabbika kulla izzika yastaqirru yasbutu fa ida tazalta biman yamuutu fa inna izzaka mayitu la tasalanna bunaya adama xaajatan wasal alladi abwaabuhu la tuxjabu allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa tarabna adama xiina yusalu yagdabu ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا nesa lépp def ko ci yàlla teranga boo am bu ci yàlla bokkee jëlal baax na alal baax na ndombol tànk baax na waaye bul bàyyi dara sa diina pour am loolu wala bàyyi sa principe pour am loolu wala góor di pour am loolu jaru ko nuraqiu nuraqiu dunyaana بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع ne dañuy dàmbataaxe dagg si suñu diina defaree ko suñuy addina yëre ji yëre addina la yëre ji yëre àllaaxira yëre addina bu xottee ko dañuy dagg si yëre diina bi dàmbataaxee ko maanaam wal kireŋ aduna on diina men kan oɗo ko dolake aduna oɗo dolake allahira dolake aduna on si seeki taƴen ka diina men walken en taƴetaka aduna walkiren diina kan nuraqiu duniyana bi tamdiqi dinina fala dinana yabqa wala ma nuraq bobana dañuy perte dix personnes teg mana diina ji du def aduna bi du def diina du def bi ñu wàññi wàññi ba mu des tuuti wala ba mu jeex day dem aduna day dem kon nag kun ma allah nekkal ak yàlla loo am rek ak yàlla baax na loo ñàkk ànd ak yàlla baax na rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliha mawlaha allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid azab al-akhirah allahumma zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ارزقنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا